alxames fukki fan ak ñaar si weeru gàmm atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm fii si Thiès kër Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mbokk yi bis la boo xam ne bis bu màgg la bis la boo xam ne bis bu tedd la waaye bis la boo xam ne te dundale nañ ko ni ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba jàngale ndax bi ñu xëyee rek lañ ko doore ak njàngum alxuraan njàngum alxuraan moo xam ne mboolem ñi nga xam ne teew nañu si barab bi teewee nañu ko jàng ba jàng xatnu bi loole yëpp nag dëppook njàngalem sëriñ Touba ci bisub gàmm bi njàng mi nuppee rek sëriñ bi daal di génn cheikh Mouhamadou Mourtala ibnu Serigne Saliou Mbacke ibnu cheikh Ahmadou Bamba safonteek taalibe yi jóge si gox yu feccantikoo ci réew mi ñëw ndokkeel ko si bis bi waaye tamit ànd ak moom dundal bis bu tedd boobee sëriñ bi mbégte mu fees dell sequ ko mboolem taalibe yi sunnati noonu la ko Sëriñ Tuubaa diglee ñu koy màggal ci sunna waaye tamit saa su nekk fu ñu dégg taalibe xam ne mook benn ñoo ànd taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp nag takk taxawu kenn defu ci ginnaaw nekk ci waañ yi duñu xëyee rek commencé nag li nga xam ne moo jëm ci bernde yi bernde yoo xam ne yaatu na loolu lu saf suukar ba lu saf xorom dara manqué siyaare ñëpp tey jégalu nag di ñaan Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacke ibnu Serigne Saliou sunu borom yàggal ko fi lool waaw di santaat bu baax tey sawar ci li ngeen ma laaj eh, ñu nii nag ci waar yi wax dëgg yàlla di ko waajal bu baax ndax bu ñu koy togg noonu ay añ añ yu ñor añ yu neex añ yu maanaam teyit ci façon yu bokkul togg nañ fi ceebu jën togg nañ fi yaasa togg nañ fi ceebu ndawal euh, togg nañ fi maanaam ci reer bi fi ñu toll ni fi may waxe ak yow ñu ngi ci togg lu mel ni petit pois ak euh, vermicelle boole koog nuus yi nuus nag loolu man ak daara bi naan waa Mbuur maanaam ñoo ci nekk ma jiite leen ci maanaam di leen ci di leen ci taxaw maanaam mu doon loo xamante ni at mu jot nii lañ koy defee kër gi nag dañ ciy sant ndax lépp a ngi saawaan baawaan lépp lu fi waay bëgg gis nga ko fi Modou Ndiaye nii maanaam lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu collation guddi gi lu mel ni meew ataaya café moom moo koy defar fii ci barab bi dañuy ñaan maanaam yéen ñi nga xam ne yéen ñëw fii maanaam ngir fësalu lig sëriñ bi suñu borom teg leen loxo ndax maanaam sëriñ bi ñun dañoo amul lu dul moom képp koo xam suñu borom dogal na maanaam nga am noo taxawee ci moom rek noonu la ñuy taxawee si yow te lii ngeen def dafa kawe maanaam gis nañ ko si màggal gi maanaam te ñëpp taj nañ ci seen bët daj na daj na kàpp kon loolu ñu ngi ciy santaat bu baax a baax di ñaan suñu borom taj ci liggéey bi lépp loxo bisimilah rahmaani rahim barke sëriñ Saali barke sëriñ Saali barke sëriñ Murtaam sëriñ Saali waaw ñu leen di xaar bu baax di wax ni waaw kàddu yi ngeen laaj am na solo ñu lu jëm ci wàllu lépp lu saf suukar ci guddi gi ndax sëriñ bi moom li mu wax ci gàmm gi mooy ndawal ak suukar kon nit ñu xam ne ñoo waree yoral wàllu jëm ci suukar si dañuy doxale ji ataaya ak café ak meew comme ni la ko sëriñ bi bëggee dinañ taal ataaya jox ko mbokk taalibe yi dinañ def café dinañ jël meew tamit boole ko ci ndax tamit sëñ bi noonu la ko bëggee kon ñun ñi nga xam ne féet ci wàllu café ga ataaya ji ñun ci wàññi yem ndax buñu li ñu def ñoo xam ne ñun li ñuy jox wàllu loolu ñun séddale ci biir euh, baas bi ñun moom ci wàññi lañ yem suñu liggéey yëpp fii la waaw mooy moo wax waral ñu féete fii ci kanamee tuuti ay ci kanam dinañ teg suñu teg ataaya pour léegi nii guddee dinañ taalal ataaya pour mbokk taalibe yi dinañ teg meew dinañ teg café dinañ jox ay beñe lépp lu lépp lu saf suukar rek incha allahu dinañ ko jox ci guddi bu neex yàlla waaw am nañ équipe bi nga xam ne ñuy àndal waaw boo xam ne ñoom après ñoo yore ñoo yore wàllu séddale bi ñun wàllu defar la ñu yore waaw parce que tamit kër sëñ bi nga xam ne ñoo bu ñu réclame loo moom ñii togg añ sax paree amatuñ droit ci añ bi dañuy xam ne ñoo yàq ñu yàq fii noonu lay doxee dañ ko organisé ñun ñun defar lañ am waaw asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi waa ji si jiital jëriñ Mamadou Diop waa nekk jëriñ waa Géejawaay waa ñu ngi bég bu baax tamit si programme yi ñu tuddee wax dëgg yàlla jaar na yoon waa ndugg doy na waa soxna yi ñu ngi dem yéen a góor yaay ñu ngi dem yéen ñu ngi dem bu baax daal macha allah waa di ñaanal sëñ Moutala mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg koo liggéeyal ay ati at dem ba fekk ay sëtam ak ay lépp rek ñu fekkee liggéey bi ak suñuy sët ñun ñëpp ñu ànd liggéeyaat liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bég bu baax. noonu ñuy amalee bernde yi si biir kër gi noonu it lay jógee fu nekk si biir réew mi di fekk ci sëriñ bi nekk loo xam ne taalibe yi seen xër ak seen bëgg cofeel gi ñu am ci sëriñ bi tax ñu koy fekk si di ko jaare di dolli ay xéewal di ko indi si bis bu tedd bii lépp nag ngir dundal guddi gi. bara te taalibe seex Mourtala Mbacke maa ko indil yi di ñaan yàlla ak bu jot naa ko mën a indi te di ko ñaan yàlla di ko fi fekk nag ak dongaam yi di ko ñaanal nag wér gu ànd fan wu gudd di ko ñaanal sutura su ànd ak di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi ni mu nekkee ilimaan nekk suñu sëriñ yàlla na nekk ilimaan yi ñëpp ci barke yontu yàlla Muhammad ci màggu sëriñ Saliou Mbacke ñun de ndokk ñun bi ñu sëriñ Touba booleeg Cheikh Mourtala mu sëriñ Saliou ñu suñu sëriñ Touba sant nañu bu wér yal na gudd fan ballay sax yàlla na gudd fan yal na gudd fan jërëjëf yéen it jërë ngeen jëf doo nga am it yàlla nañ fi yàgg te addiya yomb leen ci barke Cheikh Mourtala jërë ngeen fa wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi fu ngeen mën a nekk rek ci àdduna di leen uh, ziyaare ak ndokkeel ci guddi gu tedd gi ñu nekk muy guddik mawlidu nabii muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy guddi goo xam ne nag guddi la gu am solo ci lislaam guddi la gu am solo ci xaadimu rasul mi nga xam ne moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nim ko fonke ak ni mu fonke yonente bi ak ni mu ko daan màggale nga xam ne dafa wax ne ahyaytu mawlida nabi min asas maanaam ñooy junni ak ñetti téeméer ak benn ci gàddaay gi tàmbali naa man di màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa mu mel ni kon mooy njaal beenu ñi nga xam ne ñoo koy màggal fii ci gox yi ñu nekk mënees mënees na koo jàppe noonu muy guddi goo xam ne nag lu ne diggee na ko ci ci ki nga xam ne taxawee na ko képp koo xam ne taxawee nga ko ci ni nga ko war a taxawee ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati képp ku ko taxawal ci sunna ak ci niñ ko war a defee dana la wommat eh, jëmale àjjana dana yokk say xéewal bu baax a baax a baax loolu nag ndono la loo xam ne kon ci sëriñ Touba jóge jógee wàcce ci sëriñ Saalihu Mbàkke képp kenn ku ne dégg na ni mu fonke woon guddi gi ak ni mu ko féete nga xam ne yëfi boppam la ko def loolee nag moo ñëw ba ci cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacke mii fii ci cees ñu nekk fi di màggal guddi gi di ko dundal ci sunna ak ci na sëriñ Serigne daan defee ak Serigne Saliou Mbacke ak moom mii mu toog ci jotaay bi ak ak ak i magam foo ci dem rek noonu lañ koy defee fii ci Thiès nag nga xam ne PTM la ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñi ngi fi tey di dundal guddi gi di ko dundal ci alxuraan di ko dundal ci ay istighfar di ko dundal ci ay salawaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam di ko dundal ci lépp lu baax ak i bernde nga xam ne buñ ci yeggee incha allah ci kanam tuuti programme bi day daal di tàmbali eh, dinañ fi def eh, ay ay cours yi eh, xasaayit ci kuréel danañ fi def rajas danañ fi def conférence boo xam ne tey ci xidma lañ ko bëgg a def xidma nag lu Sëriñ Tuuba féete woo la nga xam ne ci la daan liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa ba ci lay ko yonent bi e, joxe ay ngañaay yoo xam ne fawqa na képp ku mën a doon ca ba mu jaayanteeg yonent bi ci ubaayi ol yowma rasul al mustapha bi xidmatin wa asalullah al wafa jaayanteeg yonent bi ak yàlla sunu boroom ngir liggéeyal ko baatu liggéey boobu nag e, nees ko war a defee ak yan déggin la am ak yan domaine lañ ko mën a jaare ak nu ci taalibe yi gën a mën a jariñoo moom lañ bëgg a waxtaane tey mu doon bindu gàmmo gi ndax dañuy bëgg at mu jot rek ñu wut bind woo xam ne moom la ñuy yóbbal yóbbaloo mu doon yóbbaay boo xam ne eh, dégg nga képp ku fi jóge mën koo jëriñoo eh, te du jeex mukk ci loolu lañu lañu bëgg a def tey bu soobee yàlla bu loolu weesoo danañ ci teg kuréel yi ñuy wax jas jazbu ak mawaahibu ak muqaddimaat ñetti kuréel yooyu di dugal ci diggante bi barzan ji noonu nga xam ne noonu la ko Serigne tuubaa daan defe ca njaareem bu soobee yàlla noonu lañ ko bëgg a defee Euh, def ak jàmm yàlla defal ñu tuyaaba jum digge ci ku def gàmmo ni ko Sëriñ Tuuba waxee ci Jazbul Xuluub bu ñëwee ci conférence bi dama gën a yaatu euh, loolu yi ñu ngi koy dagaan di ko ñaan xéewal yooyu saawaan baawaan fépp ci àdduna fépp ci ci ci Sénégal incha suñu sëriñ moom la am moom la ñuy tiitaroo fu nu nekk di ko ñaanal mu yàgg fi Mbàkke te wér gàmmu gi nag yàgg na koo def waaw waaye li ñuy ñaan rek mooy mu yàgg fi Mbàkke te wér ndax mënunoo wax lépp bu fi yàggee rek dina baax waaw ñu man nag taalibeem laa bu tudd Mamadou Niang ak waa jàmm gën gi yëpp waaw wax dëgg yàlla li ma ci mën a wax daal bariwul ndax gars yi ñu ngi ziar manel nga ne te mooy suñu buntu sëñ bi waruñoo taxaw sax ci kanamu sëñ bi di wax. ndax euh, Fallou Ndiaye mi nga xam ni jànkatu xasida bu mag la moom mooy borom këram te ku ne Fallou Ndiaye ni kër sëñ Mbacke maddina moom tey moo ànd tey ak daam jaxate sama ndiyaay daam ak sama ndiyaay siidi ak njaboot gi yëpp ñu ànd tey ñëw indi la teraanga yi nga xam ni saa woo gàmmoo fii ci cees teraanga yooyu dañ ko def muy seen yitte di ko defar ba mu baax di ko indi ñëw di la ko jébal Mbacke di yàlla nga ñaanal leen nag. loolu gën a yokk ndax ñoom seen yéene ci yow ak seen pas-pas ci yow maanaam weesu na lii bu nu sañoon tey gan gu fi ñëw tey fii ci kër gi wuy si la ñoom ñoo koy ñoo koy añal ñoo koy reeral loolu nag yitte la joo xame ni maanaam day seen yitte sii di ànd ceeg ñoom ñun ñëpp ñu bëgg nga ñaan ci Mbàkke ñaanal leen ci yàlla dafa leen ci taw tawféex askanu Njaxate ñoom ñëpp mànkoo nanu jëlaat seen bopp dénk leen kii ñu fi fekk tey muy sunu yaay jii ñi nga xam ndey siise ci ginnaawam laa bootoo ci bootoo ba fer di rakk ci sëñ Modou mii moom tamit amuñu payam ku ne xam na ni jàmbaar la ci kër gi ndax boo ba léegi ñoo ngi ànd moom ci liggéey bi tey mu fekk fi ñi nga xam ne ñooy mbokkam ndax Baye Moussa mi ko jur mooy ndijaayu sama dem Demba Jaxate mi nga xam ni moo jur ñoom Sidi Jaxate ñii loolu dafa yàgg di di la sant nag di la gërëm di ñaan yàlla di la fekk at mu ne di ñaan yàlla yàlla lafal la cat li ñu gën a ñaan mooy yàlla lafal la cat te say may gën a yokk ba njaboot gi ñëpp ñu la yaakaar képp ku ci ne di ci gis boppam ñun bi ñuy ànd ak yow lii rek nañ doon ñaan mbàkki lépp yokk kër gi yaatu ndax bu nu sañoon tey àdduna bépp ñëw wuy si la sëñ Modou mii nekk ak yow day sunu jëwriñ di sunu nijaay di sunu lépp ñu doyloo ko boole la ak moom ñu ñaanal ñu bëgg nga ñaanal ko yàlla guddal aw fanam ndax fu mu teew sa jëmm ji rek la fay teewe fàtte na ni moom day fàtte sax ni moom jaxate la sax fu mu teew rek sa jëmm lay la fay teewal boo wax rek mu ni sëñ Mourtala kon loolu sag la boo xam ne Mbàkke ñoo ngi la ciy ñaanal yàlla yàlla guddal saw fan yàlla yokk sa xéewal gën a barkeel bi may ñëw maa ngi ànd ak Mourtala Samos mi ma la tuddee mu àndak benn xaritam mu bëgg a jébbalu ci yaw muy alaaji xaritam mu nekk ci Dakar ana Ablaye sëñ Ablaye ñëwal jigéen si waaw dafa ñëw pour jéggalu jébbalu si. Ablaye Diouf la tudd. Ablaye sant nañ bu wér ñoo lay ñaanal daal Mbacke yi nga yàgg fi te wér. te lépp loo dëlmal yàlla ci suñu borom wàcce barke taalibe yi yàlla barkeel leen soppi leen def leen ay milliardaire nag yu sëñ Bamba ba nu mën a ànd yow ci liggéey bu baax a baax a baax ñoo ngi gërëm ñoo ngi sant defal nu ñaan Mbàkke jërëjëf sëriñ Serigne Touba jaaraamati Cheikh Ibra ñoo ngi sant yàlla julli ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ni bis bu tedd bii moom nañ ko jagleel di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax a baax di jaajëfal sunu jaaraama su sunu jàmbaar ja Serigne Touba sëriñ Saliou di ñaan sunu borom yokk ñu ay leeram tax ñu ci barkeem waaye loolu lépp na ñu koy dëxañ di ñaanal Serigne Mourtada mu Serigne Saliou sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba liggéey bii nga xamante ni yenu na ko te yenul ko maamam ji yenul ko baayam ba yenul ko murik yëpp yàlla na ko yàlla dimbali mu yóbbu ko fa mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom yàlla na ko fi yàlla bàyyi defal ko fan gudd ak wër te dara ji sëñ Tuubaa li waral sunu kàddu yi nag tey mooy danoo nekk fii ci bis bu tedd bi fii ci kër sëñ Mourtala mu sëñ Saliou ci waañ wi nga xamante ni ñii taxaw sama ginnaaw ñooy jëwri nii ñii ku leen gis te miin kër sëñ Mourtala mu sëñ Saliou xam ni ñii ñoo jëwrinu waañ yi ñoo jëwrinu waañu gàmmu ñooy waa ñu màggal kon war na bu ñu ñëwee fii tey ñu joxañ leen xam ne liggéey bi ñoom ñoo koy liggéey ñooy xëy di nekk ci matt yi ñooy xëy di nekk ci taal bi ñooy xëy di nekk ci mbana yi ñooy xëy di nekk ci tàngoor yi ba nin ko bëggee ni ko mbokk taalibe yi bëggee ñu amee ko ni liggéey bi nag sant sëriñ Touba la te ndigalu sëriñ bi la ndax sëriñ bi day moo jiitu ci liggéey bi ñu topp ci ginnaawam ndax ku xam sëriñ Mourtala mu sëñ Saliou xam ni bu dee màggal moo ñu ca man fop bu dee gàmm moo ñu ci man fop séenuñu ko sax kon liggéey bi mbégte lan lan ci def liggéey bi pastéef lan ciy def liggéey bi taw feex la ci ñun ngir kiñ koy defal ngir sëriñ tubaa mi nga xam moo dox suñu diggante ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bis bu tedd bii doy nañu sëkk jëwrin doy nañu sëkk ab sëriñ doy nañu sëkk matukaay bi nga xamante ni ci lan war a tege suñu tànk ngir mën a yegg ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon liggéey bi nag wax dëgg yàlla mel na ni ñoo ngi yegg ci cëppaandaw ji ndax ba ñu xëyee defar nañ ay ndékki defar ay añ defar reer matale nañu lépp li ci des nag mooy tufe yi nga xamante ni ak xeetu neexit yi nga xamante ni war nañ ko yóbbu ca baas ba ñu yóbbu ko ca baas ba nit ñi reer ci nit ñi xewlu ci ñu ñaalalante ba déwén incha allah yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko te sunu borom dimbali ñu ba luñ ci def ren rek bu dewee déwénee ñu mën lu ko ëpp. yëpp nag amoon ci bëccëg gi waaye ñu fàttali ne guddi gi ci boppam nag moom la ñu màggal ganek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna du guddi goo xam ne faaw mu fës fëseel googee nag li ci gën a fës bokk na ci ni nga sëriñ bi diglee di ko dundal ci sunna waaye tamit ànd kooku mbooleem taalibe yëpp sëriñ bi saafonteeg taalibe yi taalibe yi tamit amal ay réception yu am solo réception yoo xam ne yaatu na lool ci wàllum bernde dara manqué wul lépp loo soxla di ko fi gis moo xam li nga xamante ni bii moo jëm si wàllum naan wàllum barkeelu xéewal yi yaatul lool waaye tamit mucc ayib lool neex a xool waaye tamit neex a barkeeloo nekk loo xam ne dundal nañ ko ni ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba diglee waaye tamit ni ko Serigne Saliou Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba daan ko amalee ndaxte moom sëriñ Saliou ko fonkoon bis la bi nga xam ni moo di gàmm saa bu doon def appel sax bu jëm si màggal gi la daan boole gàmm gi loone nag Cheikh Mouhamadou Mourtala Saliou xam tax mu fonk guddi gi ginnaaw bu ñu génnee ci màggal gi rek la di jublu ci bis bu tedd bii di bisu gàmmu nga xam ni mooy màggal guddi gan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna nekk loo xam ne yaatu na lool ci bërëb yi nekk loo xam ne it waa Thiès fépp foon ma nekk ci réew mi di nga yëg ni ñu ngi dundal guddi gi fii niki ni ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba diglee njàngum alxuraan njàngum xasida ak bernde ak ay ziar yu mucc ayib ngoog mbokk yi yaakaar naa bërëb bi it bërëb la bu am solo gis ngeen ñi nga xam ne noonu la soxna yi taxawee ànd ak civilisation bu mat sëkk sol ay masque sol ay gants waaye tamit sol ay tenues loolu yëpp nag ngir mën a jox ñi nga xam ne ñoo di ñi fi teew ay xéwal yu set wecc seetlu lool bakkane lool it daal di taaru lool ci gis daal yit it lu lool ci xéwlu ndaxte ñii la ko Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba bëggee am ay xéewal dafa war a bakkani ay xéewal dafa war a seetlu loolu loolu waral nag lépp lu si war ñu daat ko siy def def ko si norme sax internationale la ndax nanu loo xam ne dëppoo nag cuisine yi ñuy gis si hôtel yi wala bon bëru yu bakkani yi nekk si àdduna bi yëpp mbooloo mii ñi fi teew ñoom lañ ko jagleel mbir yi yaatu na lool xéewal yi bakkani na lool waaye tamit taal bi rek ko tax a jóg muy berne yoo xam ne nag ñëpp lañ ko jegleel amul xaj ak seen mag ak ndaw góor ak jigéen ak foo mën di ñëw boo yegsee di nga yëg sa bopp sibis bi ñu defal laay berne yu mucc ayib nga dund guddi gi nu mu gënee sell waaye tamit nu mu gënee yaatu nii nooy li nga xamante ni bii noonu lañ ko dundalee ci kër sëriñ Muxtada Saliwu ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nekk loo xam ne it noonu yeen lañ koy dundalee fépp ci réewum Sénégal Cheikh Mouhamadou Muxtada ibnu sëriñ Saliwu Xaadim Rasul nekk loo xam ne it dundal na ko fii si Thiès ginnaaw màggal bi gàmm gi ak mbooleem événement religieux yi nga xam ne ñooy am ci réewum Sénégal الجود mu ngoog mbokk yi gàmmu 2020 édition bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii si Thiès kër Serigne Mouhamadou Mourtala ibnu Serigne Salim Mbacke ibnu Xaadim Rasoul dundal gi yaatu na lool ñu ngeen ko seetloo noonu mbégte mi wasaaroo si mboolem taalibe yu jóge si gox yu feccanti ñëw dundal bis bi ak guddi gi ànd koog Serigne bi lii di loo xamante ni biit seen chaîne Tawfekh Production ànd na seeg yéen nit ki niñ leen di gunge si événement religieux yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm.